mu ne baabu saamin li mooy buntu juróom ñetteel sey in siy lëf min masaili nikaaxi si masala yi siy wa falaaxi ak fas mu ne balaa moo la jàngal ate balaa moo la jàngal ate nag mu lay wax lan mooy nikaax si luxa lan mooy nikaax si sharia mu ne ama nikaaxu ndaal nikaax baatu nikaax fa maanaahu maanaawam si lugati si luga duxulu shay mooy dugg dara si shay si dara mooy dugal dara si dara mu jël pot bi dugal si dara mu ne dugal nga si pot bi dara yuqaal danaan nakaxat dugg na alxasaatu jàmbaraay mooy ay xeer yu ndaw ak faafal xëy bi suñ dafa njënd jëlem si daw si xeer yu yàgg dafa njëlee solo ay jàmbaraay yi ay xeer yu ndaw ñu ne naka xatil xasaat axsaasa jibi wa naka xa wala ñu ne wa naka xa dugg na an naw mu nelaw al ay na bët ñu ne nelaw dugg na si bët ba fi sharia bu fekkee sharia nag xaqiqatan si dëgg-dëgg fi l aqdi majazun fi lwaqt yi fekkee si sharia nag mu ne fi l aqdi aji nekk la si fas ga majaasum dagan waay fil wat yi si laal sa soxna fekkee sharia nag mooy ñu fas sëy bi tas mooy sëy bi suñ ko fasee si ngay doog a am possibilité am sañ-sañ tëddëg soxna li fekk fasagun ko mën na koo tëddëg soxna si mooy wat ko rek sharia mooy mooy tëddëg soxna qaala wax na baaduhum leen si fuqahaa yi qaala wax na malik malik ni an nikaaxu sëy mustahabun lu ñu sopp la ñu ko sopp am na ñu ne bi sunna ñu ko sopp waxtu li fa wuuteef na fii si moom fii zamani naa suñu jamono haada bi waaye nag ñoo ci nee na an nikaaxu sunnati fii suñu sunna bi wax borom xam-xam nag dañ see wuute fa qaala mu wax baaduhum lenn si ñoom ne tarkuhu bàyyeem bàyyi sëy wal ishtigaal ak soxlawoo bil ibadati si jaamu yàlla maxaafata adamil qiyaami ngir ragal ñàkk a taxawee bi xuquqi zawja bi si àqu jabar ah afdalu moo gën ñu ne bàyyi takk soxna te soxla woo jaamu yàlla li ko waral te li ko waral lu dara lu ne dangaa ragal ne soo ko soo ko takkee ak yi nga xamante ne moo la war si moom dundal gi dëkkal gi ak koddaa gi doo ko am ah nga bàyyi ko te soxla woo jaamu yàlla ñu ne loolu moo gën ndax ku am ay soxna maanaam seen diggante wala ak yi nga yi nga leen war joxo leen ko dama xiyaama sooy dekk gën wàll ñu ngay dekk wa qaala wax baaduhum leen si ñoom ne attazawuju takk soxna da afdalu moo gën donte amoo dara mu ne way tahidu te mu farlu nag fil xalaali si lu dagan maa qadar ki kattanam mu ne mu takk soxna doon sax muy muy muy farlu di jéem lu mu am lu dagan rek mu iddu ñaan ñu bokk ko bokk ak yàlla def sutura moo gën day takk soxna nañu wax loolu mu ne fa il fa il lam yujid ne amul lu lew fal mutashaabihi waaw mu jëfandikoo yu leen fii waaw mu ne wala mu ne wa nikaaxu sëy nag bi maanaa si maanaa alwat u mooy laal mooy tëtal soxna mu ne laa yajuuzu du dagan fi shari si sharia illa bi ahadi amray lu dul benn ci ñaari mbir yi loolu nag du mën a am lu dul benn ci ñaari mbir yi dafa am dégg nga aqli nikaaxin fasug sëy nga dem bëgg ndaw dem si ay waajuram ñoo dama kaa seen doom yi dama ko bëggoon bëgg ngeen may ma ko ñu daal la koy may si si may gu wér nga doog a mën tëdd nga doog ko nga doog a mën tëdd moom dégg aw milki yaminin maa moomeel dajoor maa nga am jàmm bokk nga xamante ne léegi yaa ko moom loo neex nga def dégg nga loo neex nga tëddëg moom ndax li xawlihi ngir wax li xawli taala ngir wax yàlla mu kawe mi ne walladina gaa yi nga xamante ne hum ñoom xaafiduuna way wattu lañu li furujihim ñël seen pay duñ ko dugal seen fu naqar yàlla dégg nga illaa ala azwajihim lu dul seeni soxna aw maa wala li nga xamante ne malakan moom na ko ay maanoom seen dajoor mooy seen jaami dégg nga wal awal bu njëkk bi nag te mooy takk soxna aqdi di kaaxin lahu ñel na ko arkaanu arbaati ñeenti ponk ñu koy tëggee ñu koy tënkee ci waaw xanaa xëy na xaw ma wara na alwal bu njëkk bi alwal yu mooy kilifa dégg nga mu ne falaay fex du wér alaaq du façon sëy bi du nii sulul kilifa kon ki kon sëy keneen su ko fasee ku dul kilifa ndaw si dana sëy du wérul moo tax mu ne falaay fex du wér alaaq du façon sëy bi du nii sulul kilifa waaye charte def na charte nag fil wali si kilifa surutun ay charte kilifa moom nag dañoo charte moom ay ay charte dafa am ay ay melokaan ay comportement yu mu war a yor muy doo ko tuddee kilifa min ha bokk na ci ittifaaqu diine yi dëppoo ñaari diine yi dé- dégg nga kon kon ko- ki nga xamante ne bokk leen diine mënoo ko takk kon falaay zawiju du takk alkaafir yéeféer almuslimati jullit bu jigéen wala muslim du jaagan jullit bu góor mënul takk alkaafir ci yéeféer bu jigéen dégg nga illa an takun lu la fa nekk amatahu di jébeeram loolu nag ah ku jigéen ki dafa nekk sa jébeer donte yéeféer la mën nga tëdd ak moom aw maatuqatahu mbaa mu nekk ku mu goreel fa innahu nag moom ñu zawijaha mënees na ko mënees na ko takkal fekkee jàmm boo xamante ni yaa ko goreel mu ne boobaa mën nga ko takk mu ne wa min ha bokk na ci charte kilifa alxuriyat ak gor mu nekk gor dégg kon fala abdu jaam wal mu kaatab ak jaam bu nu jotoo wal mu dabbar ak jaam bu nu ginnaawal wal mu otako ak jaam bu nu goreel baadahu lennam kooku yu sax def na fii ne aqaduhu aqaduhu aqaduhu fas-fas ba aqaduhu seen fas-fas yu sax def na fii aqaduhu seen fas-fas waaw góor suñ ko mayoon jaam góor bu jigéen mbaa ñu may ko jaam bu ñu jotoo wala jaam bu ñu ginnaawal mooy jaam wax dañ na ko soo deewee gore ku ñu jotoo mooy jaam bi nga xam dañ na ko soo ma joxee nangam ci alal gore wal mu'taqad wal mu'taqu ba'dahu ak jaam boo xamante ne ñaari ñoo ko bokk kenn ci gore wàllam ah keneen ki mu mu nekk shaay ba toxal yooyu defi tas defi tas jaam ah kooku su su leen mayee gor dañuy firi sëy ba dégg nga koy firi moo tax mu ne yus sax def na firi aqadu seen fas-fas wala ba'da duxul donte ginnaaw xaraf la donte ginnaaw ba mu xarafee si moom pare dañ ko loo xam sax ñu koy firi waaye nag wala boobaa ñan la ko almoolu can waaw waaye su xasee ba tëdd ak moom nag ñu doog ko xam li ñu fii sëy waaye moom dina ko jox can canu laal bi dégg nga moo tax mu ne wala xaa ñan la ko almahrul can bin masi si laal bi si tëdd gi mu tëdd ak moom waaw mu ne wa min ha bokk na ci inda baadihim si fas lenn si borom xam-xam yi an yakuna mu nekk xayra mu walla alayhi ngay dem walla ali bañ a nekk ku ñu yilif dégg nga day nekk kilifa ndax fekkee am na ku ku mu yilif ki koy yilif mooy kilifaam kon moo war a takk sëy bi wa an yakuna te mu nekk adilan di ko maanu dégg nga adilan la woon ndax su faa'il moo fi war a moo fi war a nekk masdar bi adala yaadilu masdaram adilan la ismu faa'il mooy aadilun aji maanu ismu masdar nag suñ ko jëfloo jëfu ismu faa'il suñ ko taxa suñ ko taxawloo suñ ko ñu déplace ismu faa'il ismu faa'il jëfloo woon jëf aw an yakuna adilan doo ko firee adilan maanu ma adil maanu la fii la fii aji maanu nga koy firee ndax dafa taxaw taxaw ismu faa'il
adilan di ko maan waaw an yakun te mu nekk adilan aadilan ma fa nekk adilan di ko maan di ko maan mu taxaw mu taxaw fi masdar bi ñëw wuutu ko fi wal mashhur liñ siwee anna al fisqa naka kàccoor laa yaslubu du rekk ay wilaayati Christ nee na liñ siwee mooy sa kilifa doon seen fa nekk kàccoor di feeñal ay mooy yàlla ah du tax kilifteef bi mu am sew day dégg nga waaye na maa xamal ne yàq daxu dina jamu ah fii kamaal aqli ci matuk pas-pas ba dina si xat yi wala si wéru pas-pas ba waaw sëy bi dina wés pas-pas dina wér mais du mat waaw wa yaqidu dina fas sëy as safiihu ku dese dina ko fasal si zur ra'yi borom xel ala nattu si doomam bi indi wali si ndigal kilifaam fekkee koo xamante ni kilifaam dafa xaw a manqué ah nee na borom xel mën na ñëw fasal ko sëyam waaye nag si si kaw charte kilifa gi jox ko ndigal amina bokk na charte kilifa ba tey albulugu majeur wala aqalu ak xel wa zukku yëpp am ngóor la kon jigéen mënul fas sëy ku dof mënul fas sëy xale tey mënul fas sëy falmaraatu jigéen laa yajuuzu dagan aqduha fasuk sëy ala nafsiha si boppam jigéen mënul fasal sëyu boppam wala ala gayriha mënul fasal sëyu keneen waaye wala ha ñel na ko am tu fawwida mu joyal li ma ñel ki nga xamante ne yaqidu dina fas dina fas dina ko fas dina fas laha ñel ko ñu ne rijaali si góor ñi fii tazwiji nafsiha si sëyloo boppam su bëggee takk soxna te kilifaam nekk fi moom doo ko fi nekk fi mën na woo benn góor ah mu fasal ko sëyu boppam wa fi amatiha ak si jéebéeram alxinni bay aji ñuul mooy jéebéer bi nga xamante ne moom moo ko moom jigéen sa amee jéebéer mooy jàmbu jigéen jàmbu jigéen boobu su gisee ko bëgg moom ko jigéen mën ko may waaye mën na woo kenn benn góor na ko mu ñëw mayal ko jaam boobu wal mu ataqat ak ku nu goreel wa waman ak képp koo xamante ne hiya moom fii isaiha aji nekk la fi jotam ak képp koo xamante ne fii stéefam si moom la nekk ah moom ko jigéen ci su ko bëggee maye day woo benn góor bu maye ko ko arruknu saani saani ponkeelu ñaareel ba si takk soxna ak salaatu mooy can kon falaay si xuddu wér an nikaaxu sëy bi dunihi si lu dul can dégg nga moom nag charte la fi fi sixati duxuli la fi sixati al aqli waaw ndaw si mën na la ko may si loolu can ñu mënoo tëral moom si loolu can woo moom soo ko xamul rubu dinaar mooy ñetti dinaar min azahab si wurus fekkee si wurus la li gën a néew mooy rubu dinaar waaw amul droit gis ko aw salaatu darahim ma ñetti dërëm mi na fi si xaalis fekkee xaalis la nag ah ñetti dërëm mooy min moom bi aw maa wala loo xamante ne boo moom qiimatu ahadihima mooy xayma lenn si ñoom ñaar rubu dinaar bi wala salaatu darahim moo xam marchandise la wala lu moo doon waaye daal xayma bi noonu la toll xam yi si dërëm la yor wala xayma rubu dinaar mi ne la udul si marchandise mu ne waxoo moom xaqul xaqun aq la lillahi lillahi taala aqu yàlla la bu kawe mi wali aadami aqu doom aadama moom ten ñaar aq la yàlla da si am aq ndaw si tam ndaw si tamit da si am aq waaye nag xaqullahi salaasatu darahim xaqu yàlla nag mu ñetti dërëm yi dong soo joxee ndaw si lu ëpp ñetti dërëm soo ko joxee un million ñetti dërëm yi dong mooy si aqu yàlla li ci des yëpp aqu ndaw si la dégg nga moo tax mu ne fa xaqullahi salaasatu darahim wa ma zaada lu ëpp na nag lu ëpp na ala dalik si ñetti dërëm yooyu xaqun aqala lil mar ati ñel ko jigéen mu ne fala waral yet su gërëmoon bi isqaati yi si rotalam jumlatan boole seen lami jus du dagal dégg nga ndax soo waroon takk mu ne la jarul nga may can baal naa la ko daganul daganul mënoo tuddee moom te can ko waa kay da nga koy can ba pare lu yaay ca lu may la ko loolu mën na nekk wala xaa ñel na ko nag en tout cas mu ratal maa zaala la ëpp ala rubu dinaar li si ñeenti dinaar fekkee li ëpp ñeenti dinaar nag comme nga waroon ko cane ñeenti dinaar moom doo ko cane ne na ko cane naa la ñaar fukki dinaar moom su ko neexee li ëpp si ñeenti dinaar yi mu mu ratal ko mais nag ñeenti dinaar nag ak yàlla la mënu ko dogal wa aktaru sadaqi li ëpp ci can laa xadde dédda déddayow la ko di ko ñeel waaw can amul can amul amul limite waaw mais am na am na fu mu tàmbalee waaw li ci gën a néew daal mooy ñeent dinaar mooy rubu dinaar waaye nag amul fu mu yem soo neexee sax nga canal ko un milliard fay sa soxna waaye yooyu tamit nee na can sëy gi ëpp barke mooy mooy sëy gi gën a néew can mu ne arrukunu salis ponk ñettee ba ishaadu mooy seede mu ne moom shartun shart la fi sixati duxuli fi wéeru xaras ndaw si laa fi sixati al aqli di jaagin wéeru fas-fas sëy bi suñ ko waxee sax amul seede wér na mais pour nga xaras ndaw si nag day am seede ndax tuuma mu day ngir dàq tuuma bu fekkee kenn yëgu ko kenn xamu ko kenn seedewu ko su la gisee nga ànd ak moom maa nga tëdd ak moom ah mën mën na la seedeel loo xamante ne tey soo faatu woon mën na la seede am na kenn mën na ñëw seede ne yow njaalookat nga ndax yëgul foo leen see ah kenn seedewul dégg nga kon fi si xatit duxul moo tax ñu bëgg soo ko takkee ci amul seede bala ngaa bala ngaa mën tëdd ak moom nga woo ñu la seede pare alruknu rabiu ponk ñeenteel bi almahallu mooy bërëb wa huwa moom almaratu alxaliyatu min almawaanii allati taqtafi taqtadi tahrimaat mu ne wa huwa moom almaratu mooy jigéen alxaliyatu bu wét min almawaanii si yi niñ tere allati yi nga xamante ne taqtadi day àcce tahrimaha araamam waaw waaw jigéen ñi nga xamante ne ñoom la yàlla araamal ci yow jigéen ji ngay takk dafa war a wét warul bokk ci ñoom wa zawju ak jëkkër ji tamit jëkkër ji tamit ah, warul nekk jëkkër joo xam ne dafa araam ndaw si way charte def na charte fi zawji si jëkkër shuruuti sixatin ay charte yu wét wa shuruut istiqraar ak ay charte saxal waaw fa shuruuti sixati charte yi wéral charte yi wér si jëkkër arbaatu ñeent la al islam mooy lislam kon yéefees ah yéefees kenn du ko may jullit bu jigéen waaw suñ ko defee wérul ndax charte si suuf si xala war tamyiizu ak ràññee koo xamante ne xàmmeewul xale mbaa koo xamante ne xelam nekk fi ah kooku kenn du ko may soxla wala aqlu ak xel wa taxaququ zukurati ak dëgg ak dëggu ak dëggu ngóor la waaw ki ñuy may tamit dafa nekk ku koo xam ne yëpp xam nañu góor la mais koo xamante ne xamuñu ko xam dafa yomb kenn xamul lan la sa sa jabar da- sa sa doom bala kaa may góor da lay wóor na kii góor la nga doog ko may waaw na na jafe xam mu ne fal xum saa muskil fal xum saa ngunu ngaana al muskil bu lënt wa am xum saa am xum sal muskil xum saa mooy koo xamante ne bubu si ñoom ñaar daganul xum saa mooy koo xamante ne dafa am pay góor pay jigéen mais benn dong moo si marché benn dong moo si marché bu góor bi mooy dox wala bu jigéen bi bu fekkee waxtaan saa muskil nag mooy koo xamante ne ñaar yëpp lay dox waaw bu ko xamante ne ñaari période yëpp day dox moo tax sax si masala miraas da nga gis koo xamante ne dafa faatu benn benn ko jigéen jigéen fee ak doomam ne kii moo leen jur Hmm? benn góor taxaw fii ah ak doomam nekk sama jabar nekk miraas bi mooy yéeme nag mu ne far fan kal muskil miraas miraas bi dana yéeme ne yéeme laa ye- laa yen kexu kenn du ko may soxna wala yen kaxu te def ko takkal soxna laa yen kexu de du takk soxna du may soxna Hmm? wala yen kaxu te def ko takkal soxna moom mënul may tey kenn du ko may tamit kenn du ko may soxna wa shurutul istiqraar charte saxal nag xamsatun juróom yi bu njëkk bi alxuriyatu mooy gor kon falaa yastaqiru du sax nikaaxul abdi sëyug jaam bi gayri idni saydi yi ci lu digalu sangam jaam suñ ko mayee te sangam yëgu ko jox ko ci autorisation boobaa sëy boobu sax dañ koy tas dégg nga wal buluuq ak mat ak majeur falaw tazawaja su takkoon takkoon soxna ak sabiyu xale bi xëyri ibni abi si lul ndigalu baayam aw wasiyihi maa ndénkaaneem maa ki ko baayam dégg seen ajaazahu ni wér na sëy ba waliyuhu kilifa ga jaaza sëy ba wér kon loolu chaque istiqraar la ndax du sax benn eh, kilifa bi wéeru ko mbaam buñ ko wéeru su ko wéeree nag mu daal koy wéeru mu daal di wéeru wéy na dafu nem delloo na ko baadal binaay ginnaaw xaraf ga fekkee na ginnaaw xaraf yi moom pare la ka eh, kilifaam doo ko yëg neneen te sëy bi kon fali zawjat ñeen la soxna sa rubu dinaar rubu dinaar waaw su ko xale bi war a jox ba saalis ñetteel ba ak rushdu mooy njub fa in tazawaja nem takk na as-safiihu aji dese bi xayri idni walihi si lu ndigalu kilifaam fa li wali ñen la kilifa ga imzaa'uhu wéyam in kaay ne nekk na sadaadan waaw sadaadan di aji jub wey na dahu nem delloo na ko nag baalal binaay ginnaaw xarab ga fa li zawjati ñen la soxna si rubu dinaar rubu dinaar araabiu ñeenteel asixatu mooy wér kon falaay sex du wér nikaaxu maridin suy aji feebar ku feebar suñ ko mayee soxna euh, euh, suñ ko takkalee soxna wérul ñu koy firi wala may datun du jaageen jigéen ju feebar jigéen ju feebar tamit kenn du ko utal jëkkër waaw wayu saxu def na firi sëy ba walaw baadal binaa donte ginnaaw xaraf la donte ginnaawam xarafe ci moom lañ ko doog a xam sax dañu firi sëy boobu ndax liñ siy bañ ay idxaalul isi xurujul isi lañ siy ragal ah ndax dañ ne góor su demee ba feebar hmm, su takkee soxna ci feebar bi soxna si faat ci biir feebar bi moom mu faat ci biir feebar foofu soxna soxna mu takk ko ci biir feebar bi doon ndax dañ naan duxulul isi la dañ naan loolu duxulul isi la ndax dafa bëgg ndaw si dond moo tax moom mu takk ko ci biir feebaram kon boobaa kooku du doon moo tax ñu ne jigéen su feebaree kenn du ko takkal soxna li ki noonu tamit soo feebaree fajal soxna si feebar bi fase ko fase ko bu wérul soo dee woon fii feebar bi day doon ndax dañ naan da nga ko da nga da nga kaa iñaane mu doon sa alal moo tax nga nga xaar ba feebar ba waaje dee nga fase ko moo tax balaa ngaa fase wala balaa ngaa takk da ngay xaar ba wér dafa jotul mu ne alxaamis juróomeelu alkafaatu mooy nawle wal kafaatu nawle nag xaqun aq la xaqul man ati aq ku jigéen ki la wala awliya ak kilifa yi waaw maan bikran aw sayb wala yoq waaw mu ne fay di tafaqat ñoom dëppoona maahum ànd ak ñoom ala tarikaha si bàyyem maa adal islam lu dul islam jaaza mu dagan falaha antaloa ñu faasiqin wala safirin kon boobaa mën nañu ko may fasiq donte mandikal la sax mën nañu ko may in amina alaya fekkee moom wóor nañ ñoom ñaar mën nañ ànd ah nawle gi daal liñ si namm mooy na ba yeen moom daal la nekk julli rek nu mu mën a mel moo xam bànd la waaye julli la ah fekkee ndaw si d'accord na ànd ak moom ah kon boobaa ne ne ne moom mën na nangu na si nangu na ni mu nekkee mandi gi muy mandi ak saay saay yi mu def moom nangu na ànd ak moom moom baax ñu daal koy wéer ñu daal koy daal mu ànd ak moom waaw moo tax mu ne fi ñu tafaxat ni mu dëppoo na maa mu ànd ak ñoom ala tarika ci bàyyeem ma al islam lul islam jaabi mu dagal alruknu sadis fonk juróom benneel la asiratu mooy tëggin tëggin bi nga xamante ne moom la mu war a fasee sëy bi ay baat bi mu war a fasee ko wax yow ma allabdu mooy baat alladi bi nga xamante ne yenn aqlu dina fasoo bi ñu an nikaaxu sëy fasiixatu tëggin mel wali bàyyi ko ci kilifa kilifa li mu war a wax mooy ankax wala ñu utiliser lu passé wala ñu utiliser lu lu ñu lu ñu toll lu passé lu ñu utiliser wala utiliser lu ñu toll wala utiliser lu jublu lu passé la wala utiliser toll maa bi dégg nga kon ci wax daal ah naan may naa ko waaw wala may naa la fekk yow yaa toog te yaa toogal foofu mu ne la may naa ko fekk da nga yóbbu mu ne may naa ko mu ne moo tax mu ne fas yéexalu tëgg ñooy wëliñ ci kilifa ndax mu ne an kaxtu sëyloo naa wala may naa wa zawwatuka sëyloo naa sëyloo naa ko waaw wasiixatu sëggin mel zawji bàyyi ko si jëkkër bi wala kim délégué pour mu teewal ko fa naxu mooy qabiltu nangu naa bu fekkee yaa toog bu fekkee dañ laa délégué nag nga ne nangul naa ko dégg nga qabiltu nangu naa wala riitu te da- te d'accord naa dégg nga mu ne walaa yaxtubu du labat ahadun kenn ala xibati axi si kaw labatu mbokkam sa soo gisee sa xarit wala sa euh, sa mbokku jiir muy labat benn jigéen amoo droit yow labat ko euh, lu lu dul dangaa danga kaa bàyyi ba mu labat ba pare ba naagu ne mënatul jot si ku jigéen ki nga doog a yow nga yow nga doog a am droit nag gën labat ko mais soo ko fekkee si kaw muy labat amoo droit yow nga nga nga suufu ko ñëw euh, foqat si moom daw si loolu soo ko defee def nga lu araam walaay su mu dagalul tamit muy waxaale ala soo mi axi si kaw waxaale mbokkam ni ko noonu sa mbokk soon waxaale te di ko jënd nga ñëw fekk ko mu waxaale nga bëgg ko waroo waxaale da ngaa war a taxaw xaar ba pare ba waxaale ba pare su ko jëndee baax na su ko wax waxaale tey rek ba ba ba ñoom ñaar d'accord ba mu dem nga doog mën a waxaale ak nga fekk muy waxaale amoo doo waxaale mu ne walaay jiw du dagan xanaa kon mu bëri walaay jiw li muy jël mu bëri walaay jiw du dagan nikaaxu sigaar yi sëyub sigaar woom soo ko xamul al budu bil budu mooy pay si pay mooy ma may la sama sama doom nga may ma sa doom te kenn amul ci diggante bi dafa araam ma may la sa doom nga may ma sa doom te kenn amul ci diggante bi loolu dafa araam mooy budu bil budu pay si pay misu comme an yuzawija mu mu sëyloo ar rajulu waaye ibnatahu doomam li rajulu ñeel waaye ala an yuzawijahu si charte mu may comme mu may mu sëyloo ko al axar ko ke- keneen ka ibnatahu doom bu jigéen walay sa baynahuma te nekkul seen diggante sadaqun can xam naa dafa am wajibu sigaar am sari sarixu sigaar am murakabu sigaar yooyu dafa arab waaw fekkee kenn ki doog moo joxe can kenn ko joxewul dafa arab fekkee ñaar ñëpp ñoo joxewul can dafa araam fekkee kii dafa joxe lii kii kii joxe kii dafa joxe fukki junni kii joxe juróom junni dafa araam
dañuy wax dañuy jëf.
Hmm?
comme man ma bëgg kenn.
comme ma bëgg ñi nga wax si daal mooy ma euh, ma bëgg euh, ma ne Babacar Babacar am doom bu jigéen ma am sama doom bu jigéen mu ne ko dama lay jox sa doom bu jigéen nga jox sa doom bu jigéen te kenn du am si diggante bi te wax dafa araam benn wala ma ne danga may jox sa doom bu jigéen ma jox sa sa- sa doom bu jigéen ndax maa ci am intérêt ah man nag naa naa la segal fukki junni waaye yow doo ma jox dara intérêt mooy sa nekk loolu tamit dafa araam wala yow nga joxe juróom junni man ma joxe ñaari junni donc ñëpp yooyu dafa araam ma war a tolloo wala wala comme exemple benn bu ñu joxe man ma am man ma am doom bu góor yow nga am doom bu man ma am doom bu góor ak doom bu jigéen yow nga am doom bu góor ak doom bu doom jigéen jigéen léegi sama doom bu góor ak sa ak doom doom bi waaw bu jigéen ak mooy beneen mooy waaw benn la mu ne wala yajuz du dagan nikaaxul mutaa sëyub mutaa sëyub mutaa tamit daganu mu ne woowuma an nikaaxu mooy sëy ilaa ajal jëm bi takk soxna na ko damay takk fii deux ans après ñu bàyyi loolu dafa araam da ngay takk rek soo demee nag ba moo yoon nekk nga bàyyi ko moo gën nga koy wax soo ko waxee mu araam mu ne woyof sax def na fi sëy ba xablal binaay lu njëkk xaraf ga wa baadahu ak ginnaaw xaraf ga bi xëy talaq ni suudul fas suñ ko yëgee ah suñ ko yëgee fekk xaraf goo si xarafa goo si moom tëddagug moom dañ koy dañ koy fiiri suñ ko yëgee tamit fekk nga tëdd xaraf xaraf na si moom ba pare tamit dañ koy dañu dañu fii sëy waaye nag way jib dina war fii moom salaaqul ni si kenn kenn ñi ca ne ay moromam ah ñu tolloog moom si jamonoom mu ne duñ ko jox loolu kenn googu dégg nga illaa an yakun loolu nag dafa nekk hunaaka foofu tasmiyatun lu ñu tudd loolu nag ba nga koy takk da nga kaa waxoon euh, fukki junni laa lay takkee wala cinquante mille wala un million laa lay takkee kon boobaa loolu nga ko waxoon di nga ko jox moo tax mu ne illaa an yakun lu dafa nekk nag hunaaka foofu tasmiyatun lu ñu tuddoon kon falaha ñe na ko musamma lu ñu tuddoon waaye su ko tee dina rot nag alayhim alxaddu gëtëm dégg nga kenn du ko gëtëm
kenn du ko joxe.
dégg nga waaye nag waaye xaq dina yëg di xii si waaja alwaladu doom bi doom bi moo ko doomam la wa alayha war na si ndaw sa moom al iddatu idda kaamilatan bu mat ñetti weer dégg nga wala du dagan ba tey andi kaaxu takk jigéen fi la iddati si idda jigéen si nekkee si idda moo xam idda talaq la idday fase la wala idday dee la kuy tënji la moo xam wala ku ku jëkkëram fase la bu mu si mën a doon amoo doon takk ko ci biir idda gi dana kaa mën takk da ngay xaar ba idda gi jeex fekkee ku dee la idda gi ñeenti weer la ak fukki fan fekkee ku faatu la idda gi ñetti weer la suwaa un way yemoo la fekkee kun fase la idda gi ñetti weer la fekkee ku dee la idda gi ñeenti weer la ak fukki fan suwaa un way yemoo la kaan moo xam nekk na iddatu wafaatin ci idday wafaat muy idday ku dee aw talaakin maa idday fase mu ne wayta abbaru dina dàppatiku ak taxrimu araam fii si moom bil wat i si laal fi l iddati si idda aw baadaha wala ginnaaw idda jigéen soo ko takkee ci biir idda laal ko si ah araam na la araam dafet moo too ko takk si biir dund waaw wala sax ci biir idda gi nga ko takk ah mais naa xaar ba idda gi jeex na ba ko laal ba tey ba tey dala araam araam dafet moo tax mu ne aw baadaha moo mbaa ginnaaw idda gi wa yaxrum dina araam attasriixu fësal bil xubbati ci labat fil iddati si idda jigéen si nekkee si idda amoo droit labat ko ba fay di fësal labat bi ba ñëpp xam ne yaa ngi koy labat amoo droit bi mën nga ko labat nag si biir idda gi mais kenn du ko xam seen diggante doo nga lay nekk dégg nga pour li nga si ragal mooy da ngay bañ ku la si jiitu te bëgg nga ko moo tax nga nga nga profité si biir idda gi labat ko si waaye labat googu nag dañ koy sàtt mu dul fës kenn du ko xam wa taayud ak gaaral bil xawli maaruf si ay wa ay wax yu nga xam mbaa nga koy gaaral si ay wax yoo xamante ni ko dégg xam ne yow da nga ko bëgg a labat waaw mu baaxoon déedéet wa taayudu gaaral bil xawli maaruf si ay wax yu nga xam loolu mu baaxoon aji dagal la mis an yaqul comme nga ne nga wax ko ne ko nii naka man fii ka la laati man yow rek laa bëgg genre yooyu xam ne rek yéen ñaar doo koy yëg yéen ñaar doo koy xam ne loolu dagal la yooyu dina dagal dina xelu ñal gor wala abdi ak jaam nikaaxu arbai xaraïs takk ñeenti gor musimaat ñi di jullit aw kitaabiyaat yi may ko di téere mooy ñi yahuud ak nasaraan yi nga xamante ne am na diine bu nekk diine Isa ak yooyu ñooy mën na leen mën nga leen takk mën nga ci takk ñeent gor yi tamit jullit ñi tamit mën nga ci takk ñeent soo neex wala abdi ñen la jaam ni kaaxu arbai imaa in mu takk ñeenti jéebéer musimaat ñi di jullit wala xor yi ñen la gor tamit daalika loolu mu takk ñeenti jébéer mais nag kañ lañ koy may in xasee nam ragal na alaanata njaaloo wala wi it te amul lil xaraa il ñen la gor yi taw lañ can ay maalam fekkee ne ragal nga ni soo takkul soxna di nga njaaloo te gor yi fi nekk amoo lu leen takkee li saa may nga takk ñeenti jébéer ak ñeenti jàmm waaw te yaa ngi ay can bi demee noonu yéen kay ko dëgg moom ñu ko jot dina jël waaw dafa dafa jël ñaari jaam gore leen takk leen waaw mu ne man kaana ku nekk na mutazawijan yéen bi sax def na lool maariyatul qibti jaam loolu duñ ko mayoon mu beere ko takk mu ne man kaana ku nekk na mutazawijan di aji takk denc bi di aji denc bi mel ateen ci ñaari jigéen aw aksara mbaa lu ëpp ñaari jigéen xaraira moo xam ay gorlan aw imaayin mbaa ay jéebéer muslimaatin moo xam ay julli leen aw kitaabiyatin mbaa ñu ko yu téere fa innahu na ko mbi jib dina war a alayhi si moom ay yaajala mu maanu baynahunna seen diggante soo takkee lu ëpp ñaari soxna benn soxna lislaam waral na sa kaw nga maandu seen diggante waral na si yow nga maandu seen diggante fa ilam yaadil nem maanuwul seen diggante foofu moom zaalimun tooñkat la aasin aji moy la lillahi ñel yàlla wali rasulihi ak yeneen toom ba maandu go nag si ñett yi lay doon da ngay maanu si kay gi sa ay fii benn fan benn fan ngay aaye fee te ñaari fan yi sax bala nga ko aaye ah bala nga ko am droit da leen dajale ba ñëw nga diisoog ñoom ne ba xam man nga ne may ma aaye fu nekk ñaari fan suñ d'accord bu kenn ci ñoom nanguwul sax amoo droit def ñoom ñëpp ñoom ñëpp dañu ànd na nga doog am nga doog am droit aaye fu nekk ñaari fan waaye lisaan benn fan la la may nga aaye fa nga aaye ko ci kër gu nekk dégg nga si kay gi ngay ngay maanu ak si dundal gi goddaay gi dëkkal gi kon foofu zalimun aji tooñ la aasin aji mooy lillahi ñeel yàlla wala rasuli ak yeneen tom laa tajus du dagan imamatuhu imamam mënul mënul nekk imam koo xamante nga am ay soxna maam seen diggante dagalul ñu koy fal benn jàkk mu mu fay jiit dégg wala shahadatu wóor daganul tey muy seede dara mënul seede sëy mënul seede dara waaw fa man jaxada ku weddina nag wujubuhu waru loolu te mooy maanu si diggante ay soxna foofu moom kaafir yéeféer la bi yéeféer mooy jëf na jëf na kaafir jëf na jëf na yéeféer koy firi yu saabu def na ko sàkkoo tuubloo salaasa ñetti fan te il lañ yëttum nem tuubul nag foofu moom kaafir boobaa lay doog a nekk yéeféer piir wala adulu maanu nag almazkur ba mu tudd adul mi ngi maanu la fii fee nag nag dafa taxaw taxawaayu ismu faal moo tax ngay firee ku maanu wala adulu maanu almazkur ba mu tudd yakunu day nekk fi nafaqati si dundal gi wal ku soo si ak koddaay bi xasabi xaali kulli waxidatin ci kenn situation kenn ku nekk si ñoom ku nekk situation am noonu ko war a dundalee noonu ko war a koddee ki nga jëlee si dëkk taax ya ak ki nga jëlee si dëkk àll ba ah ah mën ñu bokk koddaay soo ne nga nga yemay leen si koddaay nag moo gën nag foofu soo neexee que li ngay li ngay woddee ki ki nga jëlee taax ba ak li ngay woddee ki ki ki jóge àll ba bañ a nekk benn waaw ndax tey da nga kaa fekkoon mu nekk si situation yu baax ki nga jëlee si taax yi ah kon ba baax gi ma bëgg soo ñëwee soo ko mënul soo mënul nekk moom si situation bi nga jële woon mu mu yemamaay bo bokk ma xaw ko jege fa shayfatu ku tedd koo xamante ne si askan bu tedd la la nekk nga jële ko fu tedd bi xadir misaa si kem darajaam wadde ni ak ku suufatin bi xadir misaa si kem darajaam ak li gën rek mooy nga yore yëpp si lépp wa fil ma bi ak fanaan waay ba falaa yadxulu bu mu dugg li xaajatihi ngir aajoom inda man fas ka nga xamante ne lam takun nekkul na watoha ayam foo xamante ne ay woo fa amoo droit dugg fa dugg rek amoo droit amoo amoo droit def ko waxtu maanaam nag ngay ngay ngay ngay jàll si leneen tey na maa xamal ne yasubuha dina ko sakku min xaarijil bayt ci biti néeg ba lépp mu fa soxla ginnaaw ba fa aay ba ayam jeex lépp lu mu fa soxla bi ci nekk la taxaw xaal jox ko comme si ndaw bi si joxoon waaw ba mu fàttee ba mu fàttee torcham dafa taxaw si biti dem ba si escalier di wàcc fàttale ko ne fàtte na torcham te moo si ñu yéegaat ndax ayam jeex na fa mu taxaw yónnee ñu indi ko waaw commande noonu lay def wal xasmu kay nag bi yoomin walay la tin aji nekk si fan walay la ak guddi mooy mooy un jour rek wala yaqsimu daganul muy kay nag bi yow mel ni ci ñaari fan illa bi baaxul na rek seen d'accord waaw madam mu ne faidataan di ñaari njëriñ la laayi si wu daganul muy joteeg ak rajul góor zawjatahu soxnaam aw amatahu mbaa jëréeram wa maahu te ànd ak moom ahadun kenn fil bayti si néeg ba sa soxna daganul nga tëdd ak moom kenn rek nekk si néeg xale bu ndaw sax boo xamante ne liir la amul droit nekk si néeg waxtu maa nag saxiran moo xam xale la kaan aw kabiran wala mag yaqadaana moo xam kuy yow la aw naim la maa kuy nelaw waaw dagul nga gis ak moom kenn nekk néeg asaani si ñaareel ba yukrahu sileef na ay rajaahunna mu tëdd ak ay soxnaam say firaas ni waaxi ni si benn lal benn lal nga tëdd sa soxna yëpp donte defoo leen dara mais tëdd ga ñu tëdd ñoom yéen ñeent ñëpp si benn lal wala yéen ñaar ñëpp ah yaa ngi soxna yëpp si benn lal suñu ko si waxii daa am nañu yoo xam dafa araam dégg waxtu la wuuteef na na wuuteef na fii jamci imaay si boole ay jébee si benn lal tëdd ak ñoom fa qiila am ñu yejus dina dagan fa qiila am ñu laa yajuuzu du dagan fekke ay jaam la borom xam-xam yi da cee wuute ñu ne dagan yi ñu ne daganul wa qiila am ñu ne yukrahu siyeef na haada lii fi mudaajaati si tëralante donc fekkee da ngeen tëdd doomu defoo leen si ngeen yem mooy boobu leen ko sib waaye fekkee da ngay da ngay tëdd kenn ki ñu def nekk fi ah loolu dafa araam mutlaqan amma watu ihdaahuna laal laal laal kenn si ñoom bi maxdari uxaa si teewaayu keneen soxna yi laa ju daga ittifaaqan si ñun dëppoo si dëppoo wa haada lii nag aaxiru maa mooy mujj li nga xamante ne arad naa namoon nañ jamaahu boole ñu ay nikaax dafa